ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mu génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien chers internautes bokkaane ci actualité de la semaine soxal na arrêté bi am ku nekk xam ne ni Euh, démb euh, ci alxames ji la ki nga xamante moom moo di rek euh, ci alxames ki nga xamante moom moo di ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome doon def conférence de presse le gouvernement face à la presse di ñaareel bi yoon ndax la semaine dernière bi nga xamante dernière bi nga xamante ni di semaine ba la wees la semaine dernière doon nañ def rencontre bu nu mel di ñaari ay bés bu ne ñu koy def di 14 jours wala 15 jàkkaarloog presse bi. loolee nag juróom-ñetti ministre la waaye bii la yoon ñaar la Abdoulaye Diouf Sarr ak Antoine Félix Diome Antoine Félix Diome li mu fësal je pense que du lu bees parce que arrêté yu mu fi fekk la ak son prédécesseur di Aly Ngouille Ndiaye mu réactiver ko pour que mu doxal ko mais dama jàpp ne aussi seen yaa fuus da cee nekk ñoom gouvernement bi parce que on ne peut pas euh, faire un arrêté sans pour nga am le suivi malheureusement fii lañu Aly Ngouille Ndiaye tabaski taxaw ba ñëpp di ko tooñ naan est-ce que dafay wane yéreem bu rafet bi parce que waxu fi information lu jëm ci le port obligatoire des masques malheureusement ñoom ñuy njëkk a enfreindre les lois les textes c'est ça qui est malade dans ce pays tey jii mënuñu teg ay textes établir des textes pour imposer ko les la masse les populations l'opinion maintenant ñoom ñu koy enfreindre enfreindre mooy leen lan mënuñu wax ne pour obligatoire des masques ñu jékki-jékki bàyyi ko comme kaa yaa ngi wàññi ko lijjantitu waxatuñ dara ba tey ñu koy génnewaat c'est bien boo que ñu topp parce que l'État détient le monopole de la violence légitime je le je, je le cite bien maintenant nag bu fekkente ni da ngay teg ay loi ba pare di ko jalgati aussi xel day tey beneen bi mooy aussi arrêté yi man je pense que Sénégal sax waruñoo xaar arrêté war nañu aussi parce que deuxième vague bi man ba mu amee France laa toog ma ne dana am Sénégal parce que ñun moom seen France moom buñ sëqatee buñ buñ sëqatee dañ ci sori waaw buñ géexee dañ óbbali ñun moom ñun ak faa France moom ñooy doxanee noonu mais lu ci mën di am mooy Sénégal yi nañu jël seen responsabilité l'engagement doit être communautaire gis nga tey jii da ngay gis kuy dox ci mbedd mi di ñannoo ko fin ba kii jël loxo ma nuyu ci nit pare lekk ca na am na comportement yoo xam ne aussi dañ ko war a dañ ko war a changé soppi doxalin loolu même en dehors de cette maladie dañ ko war a parce que amul benn diine bu dàq sa bu bu bu bu dàqul salte ñëpp nangu set diine yëpp l'islam bañ na ko ba de ko cee da ko cee da ko cee taam set sell donc loolu nit ki dañ ko war a nag jàngal suñu bopp comporte woo ko noonu masque yi nañ koy takk. comme feebar baa ngi fi demagul nañ koy takk waaye lu ci mën également gouvernement bi nañuy wax les réalités nañuy wax la bonne information il faut pas que ñuy joxe ay ay mauvaise information Sénégal yi kenn xamul fu ñuy taxaw également par rapport parce que duñu xam ban choix la ñuy def le tey da koy invité sur le plateau mu wax la lii suba gouvernement bi gën def beneen sotti doo xam ban nga ciy jël dafa mel ne maladie bi ñoom dañ ciy nab na bi di làmb te xamuñ te c'est vrai que on ignore même son originalité gis nañ Chine euh, laboratoire euh, réserve euh, animaux yi ñoo ngi koy baare sax bëggoon nañ faa defee ay recherche scientifique pour xam l'origine bi kenn xamu ko vaccin yi y a plusieurs vaccins yu génn gis nga vaccin kenn mun la ci wax ban vaccin lañ ciy jël ministre bi wax na ne Moderna bi ñuy coow duñ ko jël dañuy tënku ci OMS organisation mondiale de la santé boo xamante ni ay un an ngi mu mënuñu trouver benn solution ci mbas mi fekkente nag dañoo bëgg a caa sukkandiku tere nit ñi seen yeneen liggéey yi aussi du dem parce que on ne peut pas quand même nit ñi di dem sans économie bi dox économie mooy yërëm réew je pense que yenn rassemblement yi peut-être mën nañ ko organiser mais mënuñoo dakkal tamit yenn liggéey parce que nit ñi fa laa bëgg ñu liggéey am lu ñu lekk am lu ñu dundee survivre loolu c'est très important mais tamit ñuy respecter taxes yi di respecter nit ñi di joxe information bu baax mais gouvernement boo xam ne da ngay làmbatu di làmbatu rek aussi loolu amul benn amul benn importance